mooy ñëw ñu waxtaan ci li xew ci àdduna bi parce que dañ naan Sénégal rek mais ndawi Afrique yëpp la ñooy dem di jël gaal yi di dox pour dem Europe di mu jaral leen lu ne ñu ne loolu nag ku nekk ngi wax ku nekk ngi naan clandestine immigration na mais ba léegi solution génn ko ñun dañu woote pour génnee solution te am nañ solution solution bi mooy ñu jàngal xale yi liggéey ñu jox leen liggéey parce que boo jàngalee ni liggéey par da nga koy utal mais du nag formé naa ko après bàyyi ko mu dem outil yi marché yombut a am mais da nga koy gunge mu liggéey mais loolu état tam am na ci wàll duñ ko xaar nag mais am na ci wàll. parce que mën nga am métier te doo am ku la liggéeyloo ñun dañ leen a bëgg liggéeyloo ñun solution boobu lañu ut ñun dañoo am ñun dañuy indi solution ñëw ñëwuñu rek pour woo média bii ne leen ñëw leen ñu wax émigration non non non. dañ ne nañu ñëw ñu indi solution teg ko parce que ñun dañoo raam jóg ànd ak suñu ay kilifa ñu jàngal ñu dañuy jàngal keneen ñun loolu moo ñu yëkkati ah donc ñun solution la ñu indi ñëwuñu pour woote nangam sangam non dañoo bëgg nekk patronat non c'est pas ça bañ ko waxee rek lama ma EGN ma se noté mën na ko jaana ku nekk dana pare ne ñaari xale man juróom lay pare ne incha allah ah oui dafa am suivi am suivi bu mat sëkk parce que ñun dañoo jóg laa pour indi solution ku indi solution nag da ngay suivre da ngay suivre lépp dañ ko suivre di début à la fin bu soobee yàlla xale yi daañu bàyyi dem ci géej gi parce que dañoo liggéeyul wax naa leen ne leen Basirou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom ma njëkk a utal visa Allemagne ma ne ko dew ma fii laay toog ba may dem di ba dem di tukki léegi France maag sama doom yi ànd